yor mbire foye njogol ne ngel na da jabaro ka ada koy e dudi he eh, awora jom yor mbire foye njogol ne jugger na ngel na da jabaro ka ada koy e dudi he eh, awora jom yor mbire foye njogol ne jugger na ngel na da jabaro ka ada koy

sur la deuxième stv bi lay xewee ba légui mbokk yi vous êtes en direct Doudou Sané ak nga xamante moy Boy Mbuur benn ci grand combat yi ik Sané lay nuyu. ziar naa la di ziar mbokki internet ak ñi fi teew si plateau bi yëpp suñu père yi ñu ngi leen di ziaré bu baax baax di ziaré ci waa Diop yëpp. kaay ik Boy Mbuur Boy Mbuur kaay s'il te plaît nga taxaw benn place fii. day taxaw. Ah. <laughs> ba no wax baax na bu baax naa la defal bagage comprendre loo sax. maa ngi wa waa Diofior waa arrondissement Fimela Fatick di ziare wa Ziguinchor bàyyi ko fenn waa Dakar gars yi Grand wa moo wa waa Seras di ko jaaree si Baye Cheikh di ziare gars yi fo yëpp mafia bi waa Castor waa Nguñaan di ziare ñëpp Sénégal partout. man sax man bëri dootuma leen wax loolu bu ba pare quoi dafa metti parce que. baax non ankay tuuti ñun ñëpp ay sportif lañ baaxul dafa metti da ngay dégager énergie. ay ndaw lañu dañoo liggéey. ah barki Seexul Xadim dañoo liggéey. kon kii nooy def ak moom. kii mënu maa téye. xaamu nuyu la nuyu ko. Euh, sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant sama papa yi fi ci ñëpp di ñaanal sama sama mais booy fii benn paalaam de kee mooy sama fii yéen ñëpp say garaam. waaw ba tey waaw waaw sant yàlla di leen sant suñu suñu suñu Babacar suñu yàlla yàlla yokk na amiin bàcc waaw di sant promoteur bi parce que gis nañ sa taxawaay. jàmm ay ndaw rek te yaa ngi taxaw di ñu jàppale. di wax champion yi nag fair-play la rek. waaw ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. di sant sama adversaire. di sant nag. waaw. Wow, di santina ko xamne sax sama bëpp te du ma rëpp karamba dans soxo amin ko waaw di sant mooy kan borom dina yi borom dina yi di sant baax di sant baax waaw borom tuuba sa tu sa waaye ko borom dina yi de non sa waaye xoolal naw borom dina ah maa ngi jégalu da pour man da ngaa pare baal ma maa ngi jégalu baal ma baal ma waxal kii baal ma Serigne Babacar su ma la namee ragal lu jolof yi waxasoo ma naan ko di ko naan de barki Seexul Xadim di nga naan dëggal sa bopp yàgg nañu tase si ay lang nga dem sumeeku dem sangu ji ñëw seetaan bi wax rek barki bu ak li ma bëgg jël si yow ndaw laa am naa doole am naa xel am naa staff bu baax am naa ñu topp suma ginnaaw yow xam naa ne cette place ngay indi arène war na seen faalu te lay comprendre Doudou Sané musuma ñëw journée depuis sama premier combat musuma ñëw journée te dóor ma ay ay bis ay ay kaar musul am comprendre man damay xaar li tax ñu topp ma xamoo ko. li tax ñu topp ma man waa Mbour yow xamoo ko. topp la yow bi amoo coow bi nga bi nga jëlee avance su Doudou Sané bi nga jëlee avance su Doudou Sané nga commencé am coow di tàkk micro yi topp si média bi di ko depuis loolu tey gënu ma. man naamu yow. man naamu ma yaa ma dugal. barki Sëñ Fallu comprendre sax tëj sa gémmi bu bis ba nga ñëw faxasu dem ñibbi faxasu dem ñibbi da ngay xaar yow baa nga man ndaw laa damaa liggéey sama micro xool leen média bi xool leen caméra yi tourné leen nii xool leen si télé bi dafa mu ñëwee day nelaw bàyyi li ngay naan nga bàyyi ba sa jël sa xoolal tourné caméra yi alors bi na amul la laa bëgg nga dem defar sa cardio bi wi ba wi ba sama makara waaw wala waxtaan la booy entraîné da nga war a ñàkk li ngay def kay kay nii rek la garaaw deful dara garaaw waaye jarul insister lii yëpp duma daan la duma daan la ak bu lay a jël si yow parce que Rasoulaye dama koy ñëw jël loo soxla wax ma lii nga soxla ma def la ko soxla wu ma boo bëggee ma jox la dara loo la nga dem laaji leen loolu man damaa yàgg compétir yow compétir oo. non non yow yow ku xalaat ci lamb sax comp kuy xalaat ci lamb bu yow kuy compétir ak ku compétirul bokkuñu mënuñoo yem. dama defali sa lii nga dem entraîné ji bàyyi sa supporter ngay def man nee naa la. aja woote aja léegi woo waa léegi xoolal xoolal caméra bi nga woote Boymut, Boymut, Boymut, Boymut. What else? waaw maa ngi woo waa Diofior. as. waa région de Fatick. ñuy woo monsieur le maire Youssou Diom. di woo Moustapha Moustapha Diouf. di woo Toto. di woo Aïssatou Koumba. di woo mu honorable député Karim Sène di ko woo si combat bi mu jàpp ci bu baax a baax Aliou Faye mi ngi toog na jàpp si combat bi combat bi sa combat la combat passé da ngaa jàpp si trop. nga may ma xaalis bu bëri ñu ngi woo tamit euh, Moïse ñu ngi koy woo na jàpp si combat bi Kéba Kanté combat bi sa combat la Cheikh jàpp si combat bi ndaw lañu euh, maire Johnson bi combat bi sa combat la maire Mbam bi kii ñu may jàppale sa xaaj bi sax wooguma leen. Eh, man daal combat bi sama combat la. bu ma jógee foofu damay dem Mbour. sunu maire bu bees bi Cheikh Issa Sall sant si suba ba muy ñëw maa ngi daje moom yëkkati xaalis bu bari may ma. ñaata boole ma jënd ko. moom lu muy jënd loolu lépp après dinañ ko wax bu soobee yàlla <laughs> incha allah di perso nag di wax ni sama papa bombardier di ko wax ni taxawaayam gis nañ ko ni ko gën a yokk waaw di woo nag père xam nga gasama waaw di ko woo eh, si combat bi di woo Grand Médine a di woo na kono waa koñ Jalma waa Orma Bambou waa Ginnaaw Raay waa Satodo waa Omkat waa 44 xam nga waa Poulaye di woo Moussa Ndong di woo suñu président gara suuf Cheikhou Gueye waaw di leen wax loolu lépp si mbuur la di wax waa mbuur yëpp nañ ma ñëw jàppale mu duma ko dànk si mbuur ci gàtt soobee yàlla ñu dem moo tëggal